Dans le quartier frénétique du plateau, entre les avenues Lamine et la rue Amadou Assendoy, ex-rue et la rue Carnot, à quelques jets de pierre de la cathédrale de Dakar, se dressent les minarets de la Zaouia El Hajj Malik Sy. Son architecture change un peu le décor de cette rue très commerçante de Sandaga. Depuis un siècle maintenant, Ce carrefour de la foi au cœur de Sandaga est fréquenté par les travailleurs et commerçants du centre, sans distinction de confrérie. Cette zaouïa constitue avec celle de Saint-Louis et de Tiwawan, les trois créées par El Hajj Malik Sy, communément appelé Maudo. À l'heure où nous pénétrons à l'intérieur de cet endroit exclusivement destiné par son fondateur à l'adoration de Dieu et à la retraite spirituelle, il était un peu plus de 18 heures. déjà, quelques commerçants et des employés de bureaux chapelets à la main entrent dans la grande salle de prière joliment décorée de motifs orientaux avec un tapis tirant sur le verre. D'après l'imam Ousmane Diop, c'est El Hajj Tierno Saïdou et El Hajj qui ont aidé El Hajj à acheter le terrain auprès des colons. En 1905, la Zaouia était une simple case. En 1909, on y a édifié une baraque en bois. En 1927, la baraque a été remplacée par un modeste bâtiment en dur. C'est en que par l'aide de Dieu, El Hadji de Louga a mis en place le grand bâtiment qui abrite aujourd'hui la mosquée en accord avec l'imam Ratib de l'époque El Hadj Seydou Diop et sur l'autorisation de El Hadj Abdulaziz Sidabar calife de l'époque. Selon l'imam Ousmane Diop, la Zawiya, comme son nom l'indique, est un lieu de culte et de retraite spirituelle que le saint homme El s'était choisi. Maodo y a séjourné régulièrement de 1905 à 1922, année de son rappel à Dieu. De plus, le guide religieux y a célébré le Maulidou Nabi sallallahu La différence entre la zaouia et une mosquée, clarifie l'imam Ousmane Diop, c'est que dans la zaouia, les fidèles n'y effectuent pas la prière du vendredi, mais y accomplissent les cinq prières quotidiennes, la prière de la Corité et celle de la Tabaski. Bien plus, note l'imam Diop, la zaouia est un lieu d'étude en matière islamique. Elle était le lieu de regroupement aux appels du grand calife El Hajj Abdul Aziz Dabbar. À chaque fois que la situation du pays l'exigeait, El Hajj Abdul Aziz y réunissait les fidèles pour les inviter à retourner à Dieu. Aujourd'hui, comme par le passé, la Zawiya est sous la tutelle morale du Khalif général des Tidjans. Toutefois, un comité de gestion est mis en place pour s'occuper de l'entretien de ce lieu de culte et l'organisation des Maulids. À ce sujet, L'imam Ousmane Diop rappelle que le gamou de Tuawan et celui de la Zawiya se tenaient simultanément à la même date. C'est en 1975 qu'Alhaj si Aziz Dabar, alors calife général des Tidjanes, a demandé et obtenu la séparation des deux célébrations. Et c'est lui-même qui présidait le gamou de la Zawiya. Lorsqu'il s'était senti vieux, il envoyait son fils Serigne Baïsi Mansour Parmi les principaux imams qui se sont succédés, on peut noter El Hajj Pedro Diop, El Hajj Moussa Ndour, El Hajj Cheikh Ndiaye Mabey, El Hajj Seydou Ahmed Seck Diop, Ahmed El Mansour Diop, Imam Boubacar Diallo, El Hajj Ousmane Diop l'actuel imam de la Zawiya. شاهده سواق الأعداء سوق لا دليل